Oustaz Saliou Mbacke di waxtaan ci lu aju ci barabu Xaadimu Rasul bi nekk ci biir jumaa ji ñu yeesalaat ko yeesa boo xam ni képp ku ci teg sa bët rek xam ni liggéey la bu rëy rëy boo xam ni dañ koo teg ci yoon e ñu ni nag ñi xam ni ñoo leen jàppale ci liggéey boobu di coréen yi ñuy jëkk laaj nag sëñ Moustapha Saliou Mbacke xalaatu yeesalaat barab bi ñii nu ko defee muy defar boo xam ni bu am solo la xalaat boobu naka la dikkee
jërëjëf sëñ Moustapha xalaat bi ni mu dikkee dikkee nañu ci ñaari wàll benn bi bu bu aada la bu wax ne dañ koo baaxoo wax dañoo wax ne bu dee ci nit yi neen yi rek nit bu fi bàyyi ko nga dem ca kër ga fekk fa mbooloo mu baree baree bari kam fa bàyyi moo moo waral mbooloom su fekkee ni nit daf fee bàyyi ko fa ñu ko denc bari mbooloo na loolu jëfiti fi bàyyi ko la kon loolu benn tegtal la li ci des it moo di ku demee ni Serigne Touba jëf li mu jëf fàtte boppam yàlla ak yonent bi rekk ñor ko ak lislaam nun ñi nga xam ne bu nuy xam yàlla ak yonent bi ak lislaam moo nu ci sóob noonu it dañ koy amee njukkal ndax lu ne kala ko kala ca teg rek mooy loolu nit sax ku ko faj mooy docteur am daf koy amee njukkal moo tax nag bi bi ko boppam ñorul nun nag nu liggéey ci moom waaw nun nu liggéeyal ko ci jëmmam loolu moo waral nu bëgg la nga xam ne lépp ci jëmmam ju tedd ja moom la nu ko yeeyale loola moo tax nu am yéene joo xam ne danoo jàpp ne fa nga xam ne fa la ko sunu borom di añalee warees na ko def noo xam ne ci sunu kattan toll te sunu xam-xam ak sunu gis-gis ak ñañ mën a jokkal ak li nga xam ci fi àddina toll ci rafetal ak màggal te loolu di méngoog lislaam ak ni mu doon doxe loolu moo waral ñu jàpp ni warees na di ko yeesal rek waxtu wu ne loolu moo nu xéer ci yeesal ak bérébu sëriñ bi ci ñu dégg nag ni liggéey bi itam ñu leen ci doon jàppale di waa Corée loolu nag lu tax ñu xalaat waa Corée
li gën a tax ñu xalaat ko mooy wax naa ne mooy defaraat béréb bi rafetalaat ko kon loolu wàll bi ñuy wax décoration moom lay doon ndax tabaxoon nañ ko ba noppi yëpp nekk rafetal la rafetal googu nag dafa am ay xeet yu ci gën a siiw booy rafetal nangam ñi ñoo ko gën a mën bu dee kër ñi mën nañ ko bu dee ay béréb yoo xam ne liggéeyukaay la ñi ñoo ko gën a mën bu dee ci wàllu xeeti jaamuwaay nag loo xam ne dañu fay jaamu waa afi yi dañoo gën a siiw ci ci ci man ko ci biir loolu nag yàlla dogal tukki yu ma daa def ma am fu ma dem ci réew gis fa lu kiimaanu loo xam ne man ci sama bopp man loola moo ma fa gën a yéem moom li ma mas a gis lépp loola ma gën a yéem ci àddina ba ma ko laajee ñu wax ne ay coréen ñoo ko def muy foo xam ne dañu fa doon nettali benn xeex boo amoon boo xam ne ñeenti fan la ñu ñu nettali xeex bi ci tableau boo xam ne da ngay wër def lu mel ne cercle booy dox ñuy nettali bis bi ngay gis nit ñi ak yëpp soo doxee ba agsi fi nga jóge woon mu tolloog ñeenti fan yi képp lu kéemaanu la moo tax nag bi nga xamee ne xalaat na lii ma jàpp ne kon daal ñi ma gisoon ñu def leen ñoom yaakaar naa ne kenn du leen ci tamit
kon yaakaar nañ ni juumloo ci xalaat boobu ndax ku gis liggéey bi xam di teg nañ ko ci ni mu ware société boobu nag nga xam ne moo ko liggéey ci waa Corée yooyu ban société la ak naka nga jëlee contact ak ñooñu.
ok loolu it bi nga xamee ne lu kiimaanoo am na ci ndax ndekete li ma gisoon coréen yi ko def Corée du Nord la. bi ma dikkee fii ci Sénégal nag ma jokkoo ak ambassadeur wu Corée bi fi ne ak coréen yu fi ne yoo xam ne ñu ngi liggéey Sénégal am na société bu ñuy wax nii na ñu fi ne ay coréen lañ. bi ma jokkoog ñoom wax leen loolu nga xam ne moom laa gisoon ñu sonn ci lool am nañu ñaari weer di jéem a seet société boobu nga xam ne ñoo defaroon li ma wax gannaaw bi ñu ne ma gis nañ ne du Corée du Sud du Corée du Nord la wante nag ñu ne ñoom itam nag duñ ko bàyyee ñee ndax seen nattungoo yi nga xam ne gis naa fa lu kiimaanoo loolu kon nag ñoom it nañu ma may nañ ma wax daal li ma bëgg lu mu yaakaar nañ ne danañu ko mën bi ma leen waxee li mu doon nag ñu soog a xam le ne ñoom mën nañ loolu décoration ñu daal di gis benn société ba nga xam ne moo fa gën a mën loolu ñu di ko wax art art la société bi tudd PDG bi ñu ngi tudd Kim monsieur Kim loolu nag ci ndimbalul société coréen bi nekk fii ak ambassadeur u Corée bi ak ñi ma ci war a jokkool ci kilifa yi Sénégal ñoom ñëpp ñu jàpp ci ba bunt bi ubbiku ñu daal di leen di contacter ñu daal di fi ñëw seet si ma wax leen li ma bëgg ñu delluwaat ba ñu delloo ñu daal di fi yebal si nag ay techniciens yoo xam ne diggante ne calpinage bi seet yaatuwaay guddaay bi ak natt ko yañ war a xam daal ñu def ko daal di jot nag wax ma ne naa leen may ab diir ñu andi ma ay plan ak i proposition ñu seet ba xam ne ñuy def loolu mooy li ñu njëkk a def.
waaw kon bi ñu ñëwee kon sóobu ci liggéey bi ñuy laaj kon bi ñu ñëwee liggéey bi naka lañ ko tàmbalee ak plat yooyu nga xam moom la ñu indee ak ay métal yoo xam ni yooyu yëpp da nga doon diisoo ak ñoom li liggéey bi am lépp ngir ñu la wax fu ñu ci toll ak li ñuy jubbante lu ñuy defar noonu la demee woon wala liggéey bi naka la doxee.
ok bi ñu demee dama leen a wax sama xalaat mu mel ne idée la bu nekk ci seen bopp. ba ñu demee nag ñoom la leen seen xel may jox nañ ko seen architecte bi nga xam ni moo amee loola ci ci société bi moom mu dal di koy génne ci jëmmal ko muy dessin nekkit ay ay ay objet yoo xam ne ay ay ay ay ay yu ñu yet ak yu ñu xelli ak yu ñu tëgg te nam ko gisee moom dal di jëkk andi loola wane si ko ba mu ko defee ñu ñu fappat ci lu bari ndax léeg-léeg ñu andi loo xam ne dafay nekk lu mel ne luy dund ay dessin am ci yoo xam ne luy dund da ci am su ko defee ma woon leen ne leen ci lislaam dessin luy dund ak yooyu nañu ko dindi def ko ay ay ay ay ay forme te bañ a nekk lu nekk wala lu mel ne gàncax wala lu mel ne weer wala biddiw yooyu na ci am te bañ a nekk luy dund loolu ñu delloo ci def baagante nañ ci loo xam ne lu war a mat juróom-ñaari proposition ci lu ne def nañ ko ñu di ko sappat di ko sappat ba mu agsi ci fi nga xam ne noona la baaxee lu ci nekk ñu déggoo ci ñu soog a dem nag jëmmal jëmmal yooyu ñu tàmbali liggéey bi dafa am ay yoo xam ne moom la ñu defaree barab bi yooyu yan nañ waaw liggéey bi ñu leen sant fukki yëf la ak benn bi ci jëkk moo di giri bi féete ci biir muy bi wër sëriñ bi ak bi ñu ko dandee tuuti giri bi nga xam ne moo féete ci biti am na itam marbu boo xam ne ci room bi dañu ko marbe miir bi it ñu marbe ko mooy marbu marbu bi mooy ñetteelu mbir yi am na itam ay poto coupole bi xubba bi bi mu ñëwee dafa am ay nangami poto yu dijji yoo xam ne dañu ko yanu poto yooyu dafa am lu ñu ko war a décorer loolu mooy ñeenteelu mbir yi am na it lu ñuy wax cristal dañ ko cristalliser ci ci ci biir coupole bi ak kifin yi def nii ñu ko across ay ar kii arcade yi waaw ak plafond wu véranda bi ngay jëkk a jot ñetti béréb yooyu la ñu def ay cristal kon juróomeel bi mooy cris matière cristal bi nga xam ne def nañ ko ci am na itam juróom-ñetti fenêtre yu mag yoo xam ne ñeent yi dañoo féete sowu ñeent yi ci des féete ba salu muy juróom-ñetti palanteer yu mag yoo xam ne moom itam dañu ko wutal giri bu bees ba noppi wutal ko vitre bu rëy boo xam ne moo tegewaat ci kawam am na itam ay fenêtre yu ndaw yoo xam ne dafa sori kaw lool pour ngelaw di dugg ak leer li mu sori nag ci kaw dafa tax dañoo mujj wutal ko dafa nekk automatique léegi bu da ngay bës benn kii rek mu ubbiku ba doy nga bës mu taxaw ci ci courant lay dox am na itam ay ay projecteur lampe yu leer yoo xam ne dañuy niit liggéey bi ñaari giri yooyu ñu wax giri bi ci biir dafa am ay ay lampe yu leer yu koy niit cristal yi dañoo wut ay ay ay lampe yu koy niit yoo xam ne bu bu leer gi ñëwee dafay dafay daf koy sànniwaat mu muy dem ci wet yi di di di mën a leer xel na mu waree moo tax projecteur yi ci yëf yi la bokk am na it ay tapis yoo xam ne yi féete biir dafa doon couleur bu vert ndax loolu dañ ci jublu rek taamu ci sunna ndax ki mu doon liggéeyal ki mu doon roy ki nokkan soppeem faculté yi fépp dañ ko def couleur vert moo tax giri boobu may wax ne mooy giri bi féete biir li li dugluur giri bi matière bu verte la boo xam ne bu bronze bi ak doré nekkee ci kawam dafay dafay fés vert tapis yi ci suuf itam dafa vert moo tax ma ne tapis yi ci la yi nekk ci biti nag dañoo dañoo rouge dañoo xonq ndax moo wutale couleur yi
am na itam ay bunt bunt yi ngay duggee ci béréb bi ñoom it ñoo ko def bunt la yoo xam ne moom it dañoo andi benn catalogue nga ñu xool ci ba won leen xeetu bunt yi nga xam ne moom la ñu soxla ñu def ko ci
am na itam ay ay pax yu ñu liggéey yoo xam ne lu mel ne boîte la ñu léegi xaalis bi ni ñu ko daa sànnee muy jege sëriñ bi ginnaaw moom daawul nangu xaalis ñu gis ne di fab xaalis di ko sànni muy dend ak moom loolu du teggin moo tax léegi ci giri yi et cetera bi ngay jëkk a jëpp ci bitti fi ngay toog boo sukkee rek wut nañu ay boîte bi yoo xam ne day tolloog yow xaalis bi looy joxe ci siyaara ak lu mën a doon nga dugal ko ci biir te biir nag moo am ay ay bunt yoo xam ne bu ñu jëkkee ba war a génne li nekk ci biir ñu dem tijji ko def ko ci yooyu mooy li nga xam ne mooy diggante leen ak décoration ya fa newoon nga xam ne dafa nekkoon doore la ko jëkk dañ ko faa bàyyi listre bu mag ba fa nekk itam modèle yi ñu ni yëpp dañ caa gisul benn bu gën a rafet bee fa ne moo tax mu ñu bàyyi ko fa yaar yooyu rek lañ fa bàyyi lu dul loolu rek la fa newoon lépp nekkatu fa yooyu daal mooy loo yi nga xam ne ñoo composé kii boobu
kon ba mel na ni daal coréen yi ñoo ko liggéey wante symbiose la daal xalaat yi dafa di xalaat boo xam dafa tukkee ci fii ci yow ak tukkee ci ñoom ñu boole xalaat yooyu màcc nag jëm ci loo xam ne lii moo liggéey mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu gis ci kaw daal coopération léegi kon muy liggéey boo xam di liggéey bu am solo la kon war na nekk diir bu yàgg xanaa liggéey bi waaw liggéey bi dañ ko def ñaari diir diir bu jëkk bi defaat na ay xaaj waaye mënees na koo tuddee rek benn mooy diiru dikk di seet ak di dem farlu nañu nag lool ndax maa ngi fàttaliku ne am na ñaari yoon yu ñu jóge Séoul ñëw fi te bu ci ne li ñu wax ne moo leen yëkkati daf maa jaaxal benn bi dañoo ñëw wax ne ciment plâtre bi nga xam ne décoration marocaine bi fi ne dañoo fàttee xam épaisseur bi talaay bi ni mu toll ñu fab benn espèce yi rabbu bu bu courant boo xam ne dañ koo bënn mu dugg ba agsi ci ciment dëgg-dëgg ba ñu natt ko xam talaayu loolu ñaata la ndax dañoo bëggoon a xam ci la ñu doon dottu cristal yi ak yeneen yu bari ñu bëggoon a xam résistance wu plâtre boobu naka lay mën a dékkoo xar ak it xóotaayam loolu dong lañ def delluwaat siwul ñu demaat ba yàgg ñu dikkati fi ne doolay courant wu Touba lañ fàttee xam te bëgguñu ku leen koy wax par téléphone ñu dikk indi seen i appareils yi mesuré ba xam ne haute tension bi dikk ci nii la toll ndax ñu mën a xam appareil yi fi indi mu déggoog moom nga xam ne bu ci ne dañ koy jóge dikk natt loolu delluwaat loolu lépp daal dugg ci li ma wax ne ñaari xaaj la ñëw di natt ak a seet ak a kii moo bi ñu déggoo ba àggal nag ba lépp noppi ba amatul dara luñ ciy juyoo nag ñu soog a dem nag defar ko defar bi xaaj bu njëkk bi ma wax muy ñëw di natt juróom-ñetti weer la moom moom yàgg na ñu dem ak ñëw di natt di wane ni soppee ko defar waaye liggéey bi ci boppam moom bi ñu déggoo ba xam ne liggéey képp a ci def juróom benn weer lañ ko liggéey waaw dañoo liggéey lépp nag foofa ba mu noppi ñu dikk daldi ko ci daldi ko fii teg moo tax liggéey nañu it da ngeen ko gis benn tableau bu ñuy def planning wax ne liggéey sàngam dajj bi ñuy dajj jir yi fi liñ fi fekkoon ñu ngi koy tàmbali weer sàngam mi ngi àgg na dem indi gi ñu indi lii fii lay tàmbalee yem foofu loolu it dañ koo sàmmonte ba nga xam ne lañ ko waxee woon rek na la demee waaw loolu kon ba ci diir bu yàgg boobu ak yooyu yëpp nga wax daal dem beeg dikk beeg mbir yi ci indi kii yeeg yooyu yëpp daal ndax mën nañoo xayma xaalis bi mu xaw a toll
xaalis bi nag moom foofu moom danañ ci sant yàlla rek wax dëgg yàlla bu fekkee ne da ngay jëf loola jaral moom daanaka da nga dul jëf coono ba nga ca daj foofu daal li ñu fi mën a wax rek moo di noo ngi sant yàlla mi nga xam ne xiir nañu ci xalaat bu rafet boobu man loonu ko itam te loolu lépp maa ngi delloo njukkal bokki taalibe yi ndax lépp seen xër ak seen taxawaay ak seen bëgg sëriñ bi ci lañu ko defee te ni ko sëriñ bi daa waxee moom waxtu wu ne day xam ne ne sant taalibe yi ci kaw li ñuy def li leen war ba ba mboolem simbi yi ñu fiy def ñu ngi koy def mu di leen xamal ne waxtu woo xamee ne jar na laaj dina leen ko wax waaye li fekk laaj leen nag nañ xam ne luñ fi indi daa mën a doxal li nga xam ne moo fi nekk fii te lu tolloog nag njëg gi ak liñ ci kii
bu ngeen gisee entreprise bi ko liggéeyoon moo gën a jaarul ci man ma di ko mbokk sama kii. kon boog muy liggéey boo xam ne bu rafet la xanaa ñu dénk mbokki talibé yi ñu wax ñu ko sax wax nga ci sànq sax ñi nga xam ne lañ koy war a ziare yàgg nañu xam ni sax murid murid gis muy discipline kon mu discipline boobu ñu war cee wëy ngir xam ñu koy ziare di yoo xam ne bi yi ñu war a laal yi ñu warul laal ak yooyu yëpp xawoon nga ko wax sax.
ok waaw moo tax ñu dellu si waat ci di leen sant ci dégg ndigal mën naa ne sax lii jàll na dégg ndigal ndax dégg ndigal mooy sëriñ bi wax ne ñu ngi liggéey nangam bëgg nañu ku ne lam man ma def ko ci waaye ñun dañoo jëf lu jiitu jiitu ndigal la ñu def jiitu ndigal nag dafa mel ne moo moo moo moo nekk moo gën a kawe jëfi ndigal waaw surtout jiitu ndigal goo xam ne nag mooy bu demee ni ji nga xam ne lañ waroon a soxla gis nga ko lu jiitu ñu di leen ko wax am na tuuti lu ma war a leeral mooy bi ma waxee ne dañuy indi ay ay ay ay yëf nu kiimaanu la doon doxee ndax mbind mi nga xam da ngeen gis ci béréb ba fu ñu bind aaya boo xam ne mooy innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir dafay aaya bu sëriñ bi daa faral di wax te ku xam ni mu demee it xam na la tax ñu yellale ko ko aaya boobu bi ñu ko bindee dañ leen ko yónnee ci fax bi leen ko yónnee ci fax dañu ko daal di liggéey ñoom ci seen mbindinu bopp yónneewaat ko ci fax ñu gis ko dañ ne leen baax na ñu daal di koy liggéey ci matière ci bu tuuti da ngeen ko gis ñi nga xam ne ni la war a mel ñu def ko ci biir kiw cristal bind ko ci biir moom mooy ñaareelu yoon bi bi ci des itam ngir ngir ñu xam ba xam écriture arabe bi danañ ko mën lool am na benn téere masalikul jinaan paas bu jëkk bi nga xam ne dañ ciy bind ne téere bi ñu ngi ko móol ci ndigalul sëriñ Abdoulaye Mbacké kii boobu la photo yónnee leen ko da ngeen gis biñ liggéeyee mbind moomu ci arab yi arab yi ñu liggéey ñoom def ko ci matière bu verte bi nga xam ne moom laa bëgg mu tege ci ci bu boobaa ci bérébu sëriñ Tuubaa bi moom it da ngeen ko gis moom it dañ koo indi boo ko gisee da ngay defee ne moo gën a rafet sax li nga xam ne moom lañ leen yónnee woon. lu ne rek yónnee nañ ci lam giri bi dañ cee indi nañ ci ay morceau marbre bi dañoo indi ay caro ñu xool ba gis ne sa tapis yi dañ koo indi ñu xool ko morceau cristal yi dañ koo indi yu bëree bëri ay formes yu bokkul yoo xam ne bëri na lool bañ tànn ci ñetti formes yi nga xam ne bii mooy dem ci coupole bi coupole bi yenn yi dem ci arcade yi yenn yi dem ci plafond kii bi. jokkalante yooyu moo tax yu bëree bëri dikk na fi li ci toppit mooy waxtu wu ne bu ñuy ñëw dara sotti dañ ciy boole ay cadeau yu yu yu yu yu wane seen mbégte ci ndam li nga xam ne am nañ ko ci wax nañ ne ci lii lañ jëkk a liggéey ci Afrique waaw liggéey bu dana nii. bi nga xamee ne àgg na itam ñu andee ci ay cadeau yoo xam ne da ngeen ko gis ñaari montre la yu kiimaanu ak benn këfinu fleur ak benn caabi boo xam ne dañoo wax ne li mu tekki ci ñoom mooy. ku ñu ubbil xolam caabi boobu bu rafet la te lépp or la boo xam ne këyit wañ ko contrôlé yëpp dañ koo boole ci biir waaw ak ya ko jëkkoon ci ay kii ci gàttal daal ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax loolu dama ko fàtte woon ñu ngi sant suñu bokki coréen yi di bëgg ci li nga xamee ne danoo fekk suñ ñaari nguur yi di yoo xam ne déggoo nañ di di ko seq waaw taxaw nañ taxawaay bu rafet a rafet la liggéey nañu liggéey bu bu baax a baax ànd ak yar ak teggin itam ci noo xam ne kawe woon na suñu njor ci bi ñuy lim yi nga xam ne ñoo ñooy liggéey bi dañoo waxoon ne fukk ak benn lim nañ ko waaye fukki yëf la ak ak ñett ndax am na bibliothèque bibliothèque boo xam ne ci xeetu dénk wañ wax ne ci seen réew moo moo moo fa gën a am maanaa gën faa dëgër te dana dékku soppikuy jaww yi ak lu mel ne max daanaka daal xeetu weñ la moom itam dañoo jëkk a indi échantillon wane ko ba ba ñu ci ci jëmmi bant bi ak xeeti ni ñu koy liggéeyee def na it ay vitre ay verre ndax giri bu bitti bitti bi bi ñu wax giri extérieur bi dañu ko def dafa am lu ko duglur lu ko laltaay mooy benn verre bu tal boo xam ne boo xoolee sa bët jëy day jàll ba da ngay defee ne dara nekku ci waaye soo laalee ngay soog a xam ne du mën a dem sédd nañ ci nag talaay boo xam ne ndax gannaaw yenn saa yi ñu xëriñ yi danañ di def ay yëngutu moo tax sédd nañ ci talaay boo xam ne yu bëree bëri dana ko mën a dékku daanaka xeetu miir la waaw miir la vitre boobu moom itam am na ci grille extérieure bi juróom-ñetti fenêtre yu mag yi ñu wax itam gannaaw giri bi mu am vitre boobu moo ko lal ñetti fenêtre yu ndaw yu automatique yi itam ci vitre boobu lañ ko liggéey yooyu bu ci ne dañuy jëkk andi ay morceau wane ko ñu xool ko ba déggoog ñoom ci talaay boobu ak day set wicc am day xaw a am tuuti couleur yooyu yëpp ñu déggoo ci ñu ñu soog ko def waxoon nga ni liggéey bi ñu koy liggéey am na jamono yoo xam ni dañuy ñëw ak def dara fàtte woon dara delluwaat ñëwaat yooyu yëpp wante diir bi nga xam ne moom la moo gën a gudd ndax dañ ko toog ci Touba ci Touba lañ ko toog wala fu ñu basé woon.
diir yëpp ñu ngi ko toog Touba loolu yi dañ ko waxtaanee ndax ci marché bi ak contrat bi dañu fee def ne ñoom li ñu leen di fay ñoo war a wutaat nag seen lépp wante nag noonu ci baaxoo gi nu baaxoo kuy sa gan nga jàpp ko te dimbali ko rawatina ku lay liggéeyal dañu leen a xamal ne diggante le li ngeen di lekk ak fi ngeen di nekk bu fekkee taamu ngeen muy Touba danañ ko mën a gàddu waaye nag dana am ay jafe-jafe ndax mooy bu dee Touba dafa bari yu ñu fiy tere te xaj na yi ñu tàmmoon lañ ñoom te seen diine ak seen aada may na leen ko ñu ne leen nag tànn leen muy Touba te dara du leen war waaye nag yu bari du ngeen ko fi mën a def wala ngeen tànn ngeen seet fu leen neex foo xam ne yéenay moom seen jikko ni ngeen bëgg a def waaye nag yéenay gàddu seen lépp ñu wax ne ñoom lu bokkut ak sax yenn ko sars bu du loolu waaye ni ñu gisee dëkk bi daal suñu leen mayee ñu nekk bi loolu moom te gis nañ ne yi yi ngi fi war a sàmmit du dara lu dul yar ak teggin rek la te loolu kon moom dañ ko mën a sàmm moo tax ci gàttal mooy dañoo toogoon Touba ñoom am na jamono yoo xam ne lim bi waxtu ne day aju ci li ñuy liggéey lam laaj ci nit tàmbalee woon nañ ci kenn nit ndax booba day ñëw di déglu li ñu soxla lu mu doon ñu tegati ci lu war a toll ci ñeenti nit ndax booba dañ doon natt ak ak ak xayma gannaaw bi mujj nañ nag bi liggéey bi taxawee nag ba ñoom ñëpp ñu maase di ñëw nag mujj nañu booba di fukki nit yoo xam ne mboolem ñooñu ñuy wax nag waxtu wu nekk bi mu dee kenn architecte bi moo ñëwoon moom dong bi mu dee ñett ak ñeent moo leen di jiite bi mu dee fukki itam moo ci moo leen jiite kooku ñu di ko wax monsieur Niang Niang lu tudd moom moo nekkoon architecte architecte décoration loolu seen waxtu ni ñu liggéeyoo ñu farlu lañ ndax sept heures et demi la ñuy xëy bu mitee ñu wàcc su trois heures yi ñu gont ba six heures et demi ñu ñu wàcc mujj nañu nag fonk liggéey bi ba nga xam ne bis yi noppalu yi sax ñu di ko liggéey ak di liggéey guddi mujj nañ di ko def moo tax nag délai bi ñu joxe woon it ci ci ci àggu bu njëkk gi àgg na lu jiitu délai bi di kii waaye fekk nag am na benn giri boobu noonu ma ko waxee woon mu desoon te liggéey ba nag xaw a kii ndax dafa war a nekk matière boo xam ne du du xumaan boo xaw leen a yàggal tuuti foofa waaye noppi nañu ba toogaat ñaari weer yoo xam ne defuñu ko dara mooy bi ma waxee ne dañuy ñibbiwaatoon dellu